Навек! tamit ba tey di ziar ki nga xam ne mooy seen jëwriñ mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma euh, moom it di ko sant bu baax a baax di ko ndokkeel ci ndaje yu mel ni nga xam ni euh, ginnaaw yàlla ci ak xalaatam euh, ay taxawaayam ci la ndaje yu mel a amee moom it ñu koy sargal bu baax a baax ci yu mel ni di ko ci félicité di ko ñaanal at mu nekk rek Euh, lim ci yéene suñu borom ful ko ko mu gën a jëm kanam lu kawe njortam incha allah euh, di nuyu ba tey di ziar mbokk yi nga xam ni fi daje euh, ñi nga xam ni ngi jógee fu bare ba lépp rek ngir bëgg lu baax ak bëgg xam-xam ak bëgg réew mi jëm kanam tax ba ñoom it ñu bàyyi lépp ñëw di koor gi di xat-xat jafe kon ñi ngi sant ko tey kon ñi nga xam ni ñoo fi suñu gan ñi nga xam ni jóge fu bari ci réew mi ni ma ko waxee léegi ñoom it lu baax yëkkati leen ak bëgg xam-xam bëgg réew mi ba biñ leen ko yëgalee rek ñoom it ñu bàyyi lépp li koor gi di xat-xat di jafe ak li Tuubaa di xaw a sori eh, barab yooyu teewul ñu. am Pastef ba ñëw teewee lu mel ni ñoom it di leen di masawu coono di leen sant bu baax a baax ci eh, ñëw gi ñu fi ñëw di leen dalal jàmm di leen wax ni seen kër la ñu ñëw di ñaan suñu borom jéego yi nga xam ne def nañ ko suñu borom eh, sotti leen ko defal leen ko ay yiw incha allah. Eh, kon xam naa du ñu guddal ñu fas yéene rek incha allah dugg ci waxtaan wi nga xam ni ñàkkul moo ñu fi dajale te mu bokk ni ñu ko waxee léegi ci ndaje yu am solo yi nga xam dañ koy faral di amal at mu nekk eh, bu ñu jubee bis bu tedd boobu di laylatul xadar di ci def ay waxtaan ay panel ak i atelier yoo xam ni eh, ñi ko taxawal li ñu ci jublu mooy di waxtaan ci thème yu am solo yoo xam ni day soxlaal jëm kanam gu réew mi ak soq ak soqale soqale eh, soqale askan bi kon ci biir waxtaan yooyu ci lañu tànn ren waxtaan ci mbiru laïcité loolu nag yaakaar naa ni jafewul ñu euh, leeral lu tax ñu waxtaanee thème bu mel noonu am solo ndax ku ne xam na ni euh, suñu réew mi ñuy wax Sénégal muy république du Sénégal euh, ni ñu koy waxee c'est une république laïque moom la constitution bi wax baat boobu nag indi ay déggin yu bëree bëri ak i doxalin boo jëlee histoire réew mi ak bëree bari da ngay seetlu ni kon loolu am na jeexit ci ci ci dundi dundinu réew mi ak déggin yu bëree bari yu ci am Eh, ak i doxalin eh, tamit ne ci biir doxalin yooyu am na ay wuute léeg-léeg yuy am li muy amee ci askan wu nekk ak mbooloo mu nekk ñii rafetlu ko jàpp ni niñ koy dundee ci réew mi baax na eh, am ñeneen ñoo xam ne lu ñoom it am na ci yeneen gis-gis ci ne warees na ko doxalee neneen loolu yëpp nag bokk ci li ñuy wax dialogue wala waxtaan ci biir réew yoo xam ne mënut ñàkk ci ci ci yu mel noonu ndax ñoo jàpp ne fi àdduna bi toll Euh, diine euh, place bi war am ci réew dafay gën di am solo ñu koy xool ndax ku nekk dégg na li ñuy wax ay radicalisme yu bëree bari te yàlla def suñu réew mi ak jafe-jafe yu mënti am suñu borom suturaal bi ba ñàkkul yenn degré yu doy waar yi àggagul foofu te ñuy ñaan suñu borom gën ñu ko sàmmal waaye nag euh, yàlla yi boo koy ñaanee da ngay bu jël say say say say matuwaay.

Euh, moom ak ay mbokam ñu ngi gor gor lu di fexe ba barab yi muy Touba ak këru diine yi nek des espaces d'échange de recherche et de concertation loolu nak yaakaar naa ni mi ngi bëgg a doon li ñuy wax tradition ci ci ci këru diine yi ndax euh, ni mu amee won am am am am Medina Baye am feneen Touba yi ñu koy dundal bu baax a baax ndax ku seetlu màggal yi euh, léegi kolog yi ñu ciy organisé di wo ay borom xam-xam. Euh, ak waxtaan yi ñuy def euh, këru diine yi kër sa Tuuba ak yu bëree bëri ñu ngi seetlu ni kon espace yooyu ñu ngi koy gën a créer euh, te dafa mel ni Cheikh Abdou Dolli nii foofu la pexe solo mooy ñi nga xam ne sax ñàkkul xamuñu leen ci kuréelu diine ñu nekk ci sur ci wàllu li ñuy wax société civile ak yeneen i yeneen yi barab ci réew mi ñoom it dafa mel ni ñu ngi leen di wootam ci espace yi di ci di ci di ci di ci kattanu seen xalaat bu ko defee ñoom it ñuy weccante xalaat ñi nga xam ne ñàkkul. bokkuñu bokkuñu formation bokkuñu sax ay ay ay léeg-léeg ay gisin bu ko defee rek lépp ngir intérêt Sénégal incha allah kon ci gàttal rek kon thème boobu yaakaar naa thème bu am solo la euh, rawatina ku nekk seetlu na ne ci référendum bii ñu génn euh, bëri woon na ay coow ci baat boobu baatu laïcité ndax niñ ko gisee bi ñu amee proposition ci euh, def ko muy lu intangible ni ñu koy waxee amoon na ay baat yu jóg ba gis ni sax mu am ay division assez tranchée des deux des loolu tam ñu gis ni euh, ba sax production bi ci Touba am mu doon lu xawoon a fés dafa mel ni daal barab bi muy tuubaa kon barab bu ñu war a waxtaanee loolu la confronter idées yi bu ko defee nag ñu ñu incha allah am yéene ay solution am solo juddu yoo xam ne dina mën a jëmale réew mi kanam kon euh, kon dañuy jox seen cheikh mi nga xam ni docteur Cheikh Gueye euh, mooy def incha waxtaan wi bu ko defee ay leeral yu bare ci lan mooy laïcité. Euh, ak ban histoire la am ci Sénégal ak euh, ñakul yam avancer wala yam problématique lay poser ak dégager xam naa ay piste de solution yoo xam ni euh, dina am njariñ docteur chagne nak xamna ñu bari xam nañ ko ndax gis ay taxawaayam am solo ci ci ci Sénégal ci wàllu xam-xam mom ci gàttal rek mom formation géographe la fi nek ni chercheur la à ENDA tiers monde Euh, defoon ay gëstu ci dëkkub Touba ndax euh, Touba la capitale des Mourides muy téere bu siiw boobu moom moo ko bindoon euh, bokk tamit ci ñuy taxawal li ñuy wax cadre unitaire opérationnel stratégie de l'islam au Sénégal muy benn kuréel boo xam ni commission scientifique yi nekk ci këru diine yi ñoo ko seq créé ko bu ko defee moom bokk na ci ñu ko jiitee nga xam ni kuréel yooyu leen tax mooy lépp lu nekkati jafe-jafe Sénégal ci wàllu diine kuréel yooyu taxaw waxtaane ko génn ci ay gëstu ngir loo xam ne dañ koy mën a jëriñoo kon daal ci ku bëri ay taxawaay lañ ci yenn taxawaay bëri na taxawaay yu am ci ci ci fànn woowu ci wàllu réew mi kon ku war a mën a waxtaanee bi ko jox la euh, incha allah kon xam naa moom dañ koy jox euh, mu waxtaan ci lu mat euh, xam naa fanweer ba ñeent fukki minutes ak juróom 45 minutes incha allah bu ko defee bu noppee ñu jox suñu gan yu am solo yi nga xam ni macha allah ñu ngi leen di nuyu bu baax di jox seen waay ñoom it xam naa ku ci nekk ñu jox la diggante. juróom fukk ba xam naa diggante boobu fukki minute yow it nga indi sa contribution ngir lan nga déggee ci waxtaan bi ak yan perspective nga gis ni war nañ ko ci dugalaale euh, ko defee gan ñi bu ñu bu contribution yooyu noppee xam naa bu amee ay éclaircissement supplémentaire yoo xam ni moom conférencier bëgg na ko cee dolli moom it xam naa ñu ñu ñu jox ko ko euh, bu ko defee rek xam naa ñu ñu tëj jataay bi incha allah balaa balaa xëgg di jot kon xam naa ñu bañ a guddal jox sëñ Cheikh bu ko defee mu dugg ci thème bi incha allah jërëjëf. asalaamualeykum ñi nga xam ne ñëpp ñoo fi teew. bismillahi rahmaani rahim. wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima maa ngi door waxtaan wi di sant ak di nuyu kilifa di ay boroom xam-xam di ay nit ñu am taxawaay ci réew mi di xalaat ak di jëf ngir lu ko yóbbu ca kanam ci jàmm Euh, li may wax pour dem directement ci ci thème bi mooy présenter d'abord li nga xamee ni mooy titre bi ñu proposé pour ou contre la laïcité ligne de fracture d'un débat national mu doon thème boo je ni maa ngi ci kobos léegi sëñ Euh, Aziz ni ko yéen ko proposé mais xam naa ni buñ ma bettoon ni ma ci laïcité la ñu bëgg a waxtaan naka nga bëgg a formuler thème bi ma koy formuler du sori ni nga xam ne noonu la ñu ci beneen wàll mën naa ne dëppoo na lool ak. ni nga xamé ni non la euh, définiré problématique bu melni moy confrontation ou renégociation l'impératif d'un nouveau pacte national dans les relations état religion et société au Sénégal ndax lima japp moy tollu toll nañ ci benn taxaway bo xam thème bii nga xam ne nii moom la ñu yëkkati laaj na toog waxtaane ko amaat ci euh, jëmuwaay bu bees tama euh, jàpp ne bu fekkee xaj na defuñu ko li nga xamee ni moom lay wax confrontation mën na ko jur kon daanaka moom ñi nga xamee ni noonu la ko sëñ Aziz définiré benn la xam naa ne li nga xamee ni mooy référendum constitutionnel bi nga xamee ni moom la ñu def ci mois de mars euh, ak li nga xamee ni moom la président de la république Macky Sall njëkkoon a proposé jëmale ko ci intangibilité du concept de laïcité Beaucoup na Chili, ta tax débat bi judduwaat suqalikuwaat ci lu jëm ci laïcité kon ñun ñu jàpp ne euh, au lieu ñu ñuy référendum bi rek daal di sul boobu thème te ëmb ay lëndëm lëndëm ëmb ay désaccord euh, warees na ko mën a indi waxtaane ko ndax li ñu jàpp mooy xaj na bokk na ci ligne de fracture yi nga xamee ni ñoo gën a fés Sénégal maanaam loo xamee ni dafa xar Sénégal ñaar wala bokk xol yi wala ak xel yi dëppoowuñ ci dinaa dellusi bu baax ci loolu euh, li ma jàpp mooy li nga xame ni moom lañu tuddee laïcité du loo xamee ni dafa ànd moom kese dafa bari lu mu àndal te li nga xame ni moo indi xar-xar bi may wax xaj na mbirum république ci la bokk suñ ko yaatalee mbirum démocratie ci la bokk ah, mbirum droit de l'homme ci la bokk ak yeneen question yu mel noonu ak yu bokk ak moom ndey nga xam ni foo ko yëngalee ci réew mi mu indi ay werante walla mu indi ay xol yu jóg walla mu indi leneen lu ko gën a garaaw ma jàppit ne loolu bokk na ci li ko indi euh, li nga xamee ni mooy baat yooyu ni ko li ëpp ci réew mi nga xame ni jànguñu euh, tubaab jànguñu français te xam naa ni bariwul ñu jàngul tubaab te mu am ay bërëb yu ñu leen di expliquer ak di leen euh, càmbaral baat yooyu lan la ëmb lan mooy seen cosaan ak lan la ñuy wut ci réew mi di Sénégal kon bu ñuy dellusee ci laïcité ah, ñu bari gise nañ ko li may tuddee corps étranger maanaam loo xamee ni dafa ñëw fekk soow mi daal di ciy ñuul ah, jóge ci historiographie yu yu yeneen yu wuuteeg suñu réew xaj yenn saa yu sori xaj na bi ñuy ñëw euh, ànd nañu ak euh, contexte boo xamee ni moom mooy contexte colonisation nga xamee ni jamono boobu lu ci ñëw xaj na ni ko xamee ni noonu la ko nit ñi diwaa Sénégal di recevoir yi xaj na dina doon lu particulier te ku nekk xam na ne colonisation dafa am jeexital ci mbirum économie am jeexital ci mbirum politique am jeexital idéologique am jeexital ci mbirum njàng am jeexital ci mbirum communication loolu yëpp ku ne gis ne ne xaj na lii ñuy tuddee globalisation tey jii nii moom mooy mooy mooy benn la ci pàcc yi nga xamee ni moom mooy dëggal

thème bi doon na thème boo xamee ni liñ koy waxtaane ci réew mi néew na surtout waxtaan boo xamee ni dañ koy waxtaan ngir xalaat ci suba ngir ne suba naka la réew mi war a taxawe ci diggante lislaam ak këru diine yi ak mbirum euh, politique lu néew la lu koy waxtaan te it mosuma fàttaliku foo xamee ni tërale nañ fa këyit boo xamee ni réew mi yëpp ñoo ko waxtaanee xaj na lañ si dellu ci kanam waxtaane assise nationale waxtaane yeneen euh, jamono yeneen temps yeneen période yoo xamee ni euh, baat yi jógoon na dugg ci biir débat yi euh, ñu mën a waxtaan ci est-ce que moment bobu mën nañu japp né réew mi yëpp ko waxtaanee wala déet li nga xamé ni mom moy posé wu comme problématique dans un premier temps moy ndax système de gouvernance yi nga xamé ni mom la africain yi di doxalé seen réew tay ndax mën nañu and ak l'islam ndax le bi nga xamee ni la système de gouvernance, système de gouvernance yooyu ak système politique dit le lëkkaloo ak diine ji ndax loolu am na risque wala déet ndax valeur yi nga xamee ni moom la këru moom la diine ji di indi ci espace public ci vivre ensemble bi est-ce que loolu mën am jeexital jëm ci mbirum gën ko jubal gën ko baaxal gën fa yokk éthique gën fa yokk moral ku ne xam na Sénégal ne euh, këru diine yi euh, bokk nañ surtout su may jël exemple confrères yi soufi yi ci ñi nga xamee ni ñoo sos réew mi euh, sama xarit Abdou Aziz Kébé day wax ne ñoom ñooy enfanté réew mi maanaam

Euh, rôle bi nga xamee ni joué nañu ko ci réew mi euh, am na doole am na am na solo question bi tamit li nga xamee ni yëkkati na ko tax mu gën a nekk lu lu am solo waxtaanee bokk na ci euh, li xew ci àdduna bi maanaam idéologie yu bari yi tas ci àdduna bi jaare ci télévision yi jaare ci internet jaare ci yeneen Euh, voix nga xam fu nit ne dinañ la fa fekk di nga jot bo bëggul di nga jot say doom dina jot boo bëggul say doom dinañ jot idéologie dem ba extrémisme euh, guerre bari non seulement

damay laaj ci ci problématique bi nga xamé ni mom lañu mom lañu la manam muy terme de référence yi ndax laïcité au Sénégal la wara wax wala laïcité sénégalaise euh, may sante sëñ Aziz ndax danaka luñu inspiré wu la ci lu mu bind ci xidma ou la philosophie politique Cheikh Amadou Bamba muy laaj ndax république du Sénégal lañu am wala république sénégalaise xaj na bu jëlee jëlaatee parole dina ci dina ci dellu waaye pour man questionnement bu am solo la li muy poser fondamentalement mooy ndax li ñuy wax république ndax li ñuy wax laïcité ñoo ko moom ban euh, ban taarix la am ci réew mi euh, loolu bokk na ci li nga ni dinañ ko fi yëkkati li ma bëggoon euh, njëkk njëkki euh, xuus ci lu jëm ci théorie concept maanaam euh, tuuti fan le principe de séparation entre l'État euh, dans l'état de la société civile et de la société religieuse, et d'impartialité ou de neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses. Donc, nous ne ñun ñu bëgg que wax laïcité Moi, euh, maanaam madame la boo Limi ni li muy Hameni, mooy takaliko ak diine mu am li ñuy wax impartialité ak neutralité euh mu doon baat boo xam ni euh, xaj na bu fekkoon mën nañ koo firi ci wolof ah, mën nañ koo tuddee tëdde njaaxaanaay wala tudd tëdde ndey ji seex ma jàpp ne bu fekkoon

signification yu bari ci histoire depuis l'antiquité euh waaye fu mu mënti ne li niñ ko fa dëggale moy baat bo xamni dal da fay woné ni li ñuy wax nguur même su féké baat bi satisfaire ñu euh, dafa war takaliko ak ak waru waruñoo jote dara euh kon comme euh, Jean Bobero, définition processus de sécularisation et laïcisation la sécularisation implique une relative et progressive perte de pertinence sociale des univers religieux par rapport à la culture commune donc laïcité pour mon c'est ca réew mu ñu waxee laïcité wala bërëb bu ñu waxee laïcité day diine daf dellu ginnaaw bàyyi lu jëm ci mbiru nguur ak ci mbiru politique jiitu kon ñu mën a wax ne euh, baat bi fa mu jógee muy cosaanam ci ay bindkat la yu mel ni Marc Aurèle ak Locke nga xamee ni anglais la ba ci ñoom Diderot ak Voltaire nga xamee ni jàng nañ leen ba révolution américaine ku James Madison ak Thomas Jefferson ak ku mel noonu ba ci ay Jules Ferry France ñooñu ñëpp ku ci nekk bind nañ ci ñu leeral foofu tamit né ñooñu ñi ci bari ñi ñu gëm yalla lañ ñi ñu gëmul yalla lañ nek ay agnostic walla ay athée waaye ku ñoom ñëpp dañoo d'accordoon ne réew yi nga xamee ni ñu ngi ko doon tabax ci jamono boobu dañoo war a tàqale diine ak doxalinu réew euh, ba ci euh, Jésus sax mi nga xamee ni ci jamonoom baat bi nga xamee ni moom la ñuy wax rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à ñu bari interprété nañ ko comme euh, ne dañoo war a tëral mbiru diine

law na ci àdduna bi doon na ci àdduna bi tamit problème doon na ci àdduna bi problème boo xam ni fépp ci réewu àdduna bi dañ ko dañ ko dañ koy questionner di ko jàngat di xool ndax jubu na seen réew wala jubuwul seeni réew kon moy jàpp li nga xamé ni mom lañuy mom la ci wa Sénégal di waxtaan euh, doonul lo xamé ni lu singulier la wala lu particulier la loo xamee ni la fépp ci aduna bi lañ koy lañ koy laaj tay ji est-ce que principe universel bo xamé ni comme niko sénégalais yu bari jàpp notamment intellectuels sénégalais est-ce que principe universel la loolu it bëggoon ci guus tuuti wane par exemple né, dëkk bu mel ni Albanie ah, sori na waaye liñ ci mën wax moy amna évolution manam ci seen histoire ay temps japp nañ né dañoo wara a boole ak nguur diine ak politique

Euh, fu mel ni Australie euh, su ma ko jëlee mun naa ci wax ne euh, ñoom seen séparation ak mbirum religion lu fa fés la te waaye du ñu du ñu maanaam fésal benn benn fésal jëm ci jëm ci contre religion euh, fu mel ni Autriche euh, comme ni ma ko waxee woon ci ci ci Allemagne sànq ñoom moom amul làq-làqal ñoom dañoo wax ni église catholique mom moy sen religion moy religion nguur gi ba tax na communauté religieuse yi dañ leen di may dañuy état bi ci boppam day lever ay impôts diko jox communauté religieuse yi fu ni Belgique relation bu complexe la am ndax ñom tamit mbiru laïcité mom lañu wax ci sen constitution wayé dañoo wax quand même ne catholicisme moom mooy ah, religion bi nga xamé ni mo fa dominé ah, ba ci enseignement officiel bi nit ñi nga xamé ni ñom ñoo fay dugal seeni doom mën nañu choisir ay cours confessionnels ci biir programme yi te ku ko parti parti la plupart des partis euh, dañuy tudde seen bopp parti chrétien mu nekk parti de gauche mu nekk parti de droite mu nekk parti du centre soo xoolee dëkk bu mel ni Brésil ku nekk xam na ni pays pays laïque mais aussi pays où euh, église évangélique yi bari doole loolu

waaye it ku nekk xam na ne In God We Trust ci ñoom la jóge mu fees ci seen xaalis ba mujj faf nekk ci seen ay loi yoo xamee ni ay député ñoo ko fa proposé ba ñu mujj ko nangu te ku fay waat fekk ñu fal la diine ji nga xamee ni moom nga gëm moom ngay waate téere bi nga xamee ni moom nga gëm moom ngay waate légui nag ñu ñëw ci France xamna né euh yoon la ñu ñu particulariser France ndax France du dëkk bu nekk pour ñun dëkk la bo xamé ni nii coloniser. ñu coloniser ba mu ñu colonisé ba ñu joxee indépendance it ñi nga xamé ni ñom ñoo ñom la wax tay ji xatna consultant wala appui technique du France ñoo ñu bindal suñu ay constitution ci lu bari kon daanaka buñuy togué tay tey été jii di waxtaan di jàngat mbirum laïcité mënuñu ko ñàkk lëkkale ak la xew France ak tariq ba baat boobu am France ak la mu donc famu mu d'abord mooy déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 euh, ba ci euh, constitution 1958 un euh, moment fort bu important par rapport ak euh, laïcité aussi euh, En 1905 ak loi bi nga xamé ni mo séparé église et état mais comme nous avons ko waxee que loo xamee ni la lu évolué la ci sen histoire histoire seen ci sen taarix amna ci ay moment yo xamé ni église bi ak nguur gi amna ci ay étapes yo xamé ni dañoo séparé amna ay étapes yo sont ni dañoo bañante comme lool yépp xew na fa te ku ko dégg mën le djégélé ak li nga ni xew nga na bu France laïcité bu sévère wala laïcité même bu intégriste mën tamit

ba jamono ji ñu toll baat bi nekk na baat boo xamee ni ñii dañ koy jàppee euh, baat boo xam ni dañ ko war a xoolaat dañ ko war a interroger xool ndax France laïcité bi nga xamee ni nii moom lay doxe ndax moom la war a continuer doxe wala ñeneen ñeneen ñi tamit jàpp ne laïcité bi dañ ko war a renforcer ndax menace yoo xamee ni dañ koo jàpp ne diine l'islam da leen koo menacé loolu tamit duñ euh, ci mën a jàpp beneen aspect bi nga xamee ni bëggoon naa ko souligner par rapport ak euh, laïcité France mooy li mu nangu ay exception loolu tamit dina xaw a jaaxal ñu bari mais laïcité France li muy tar tar tar euh, am na ay région France yoo xamee ni laïcité dañ ko faa noyal wala ñu euh, choisir yeneen modèle mu doon ay exception ci biir France Nous ci joxe Alsace modèle euh, Moselle euh, Nous ci joxe fu nga xamee ni ay jullit lañ ñu reconnaître seeni culte reconnaître ay tribunaux yoo xamee ni charia lay doxe te lépp nekk ci biir France fu euh, c'est culte c'est ordonnance 1827 Moi, reconnaître le cultes culte catholique Moi, c'est culte de l'autre France Saint-Pierre et Miquelon Nouvelle-Calédonie ont autorisé autoriser une missions religieuses constituer un conseil d'administration euh, afin de donner une situation juridique à la gestion des biens utiles à l'exercice des cultes mun naa multiplier exemple yi euh, leneen li nga xamee ni bëgg naa ko ci fësal mooy ni nga xamee ni noonu la réewu Afrique yi nga xamee ne France moo leen colonisé woon ni nga xamee ni noonu la ñu toppandoowee France ci mbirum laïcité suñu ko seetloo mun nañu wax ni daanaka. réew yi nga xamé ni moom la France colonisé won kessé ñoom ñoo bind laïcité ci seen constitution fi ci Afrique te amna ci réew yo xamé ni sax France mo leen colonisé won euh ah, té ñoom dañoo dem ba ñi am seen indépendance ak ni seen histoire demee ñu ne ñoom duñu def laïcité ci seen constitution ku mel ni fu mel ni Togo nous avons beaucoup de ci fédération de l'Afrique occidentale française ñoom la laïcité une constitution fu le Cameroun, Cameroun avons formulé que le Cameroun place la république sous l'égide de la laïcité mais le peuple camerounais se place sous la protection de Dieu C'est une constitution La constitution Madagascar mon amul benn vérité. Euh, affirmant sa croyance en Dieu

mënoon naa multiplier exemple yi jaar ci Turquie ndax ku nekk xam état dafa am na nu ko taxawale euh, imam yi ay fonctionnaires lañ nguur euh, ministre des affaires religieuses Nous ni Indonésie euh, laïcité ci constitution

si ci continent yépp ñu tudd baat bi ak ñu ñàkk ko tudd maanaam naka la nguur di demee ak diine pour doxal réew am na ñu ko tudd nag am na ñu ko tudd fii ci Sénégal débat la boo xamee ni bu fi yàgg la déjà 1960 bi Senghor di inauguré fii jumaay Touba lam ca waxoon mooy la laïcité pour nous n'est ni l'athéisme, ni la propagande anti-religieuse. La religion est un aspect essentiel de notre culture. Elle représente l'effort le plus noble pour lier l'homme à l'univers dans un double effort de socialisation et de totalisation. Nous l'air laïcité comme France wala propagande boo xamee ni day dàq diine waaye nag lu ko yëngalaat jamono jii ñu toll ba laïcité nekk lu ñor ñëpp ba tax ci jàngat bu ñu bari def li nga xamee ni moo xew ci référendum bi ñu génn euh, ñu jàpp ñu bari jàpp ne fii Touba xaj na li jëm ci mbirum vote non bi bari fi doole bokk na ci

est-ce que du jëmul ci mbirum euh, indi fi mbirum góor jigen affaire homosexuelle wala question donc euh yi nga xamé ni nii moom moo làqu ci question homosexuelle yi nga xamé ni question bobu tamit bu wër àdduna la fii ñu toll nii kon liñ ci fatalé rek moy Sénégal ni nga xamé ni non lañu tabaxee réew mi noonu lañu ñu réew mi euh, diine ak nguur dañoo mës a ànd di di dox ba ñu bare jàm jàngat jàpp loolu bokk na ci li tax réew mi nekk réew mu dal mu bari ay euh, chercheur ay gëstukat yoo xamee ni ci seen gëstu loolu lañu ñu danaka ñu bari ci gëstukat yi nga xamé ni geustu nañu fi digënté indépendance légui même avant euh, ñu ci bari reprendre nañu ki ñi wax Paul Marty nga xamé ni téwon na fi ci territoire Sénégal ci fin 19e euh, siècle début 20e siècle jaar ci réew mi yëpp def fi ay études génne ay téere ci ni nga xamé ni noonu la ñu euh, euh constitution France euh amna lu ci lu ci waxone lo xamé ni euh, préparé woon na ko ba mu la naturelle paresse du noir tant physique qu'intellectuel, s'accorde le mieux au monde avec le dogme du fatalisme et de l'abandon à la volonté supérieure donc pour moi, nous ne ko ne ñun dañuy leen di le noir se laisse toujours séduire par la nouveauté qui se présente sous la forme supérieure de la science ou de la religion il ne se lasse pas de lui faire bon et joyeux accueil muy doon wax du ñaaw joo xamee ne euh, bari na ci ñi nga xamee ni def ay Euh, am na luñ ci luñ ci dëggal ñu ci bari it euh, fésal ne dëgg-dëgg Sénégal bu nekkee réew mu taxaw nekkit réew mu dal diggante boobu nga xamee ni mooy diggante diine ak nguur euh, ñoo ko séq di ko doxal ku mel ni Chris O'Brien ku mel ni Christian Coulon bi bind na Marabout et le Prince

Les renouveler par rapport à l'homme que a les connaissances de l'intérieur et non pas des interprétations avec des visées idéologiques ou politiques euh, kon bu gens jàpp nañ ne nguur ak de Sénégal moo tax seen lëkkaloo tax na réew mi dal man boog dama jàpp ne xaj na diggante bi am na solo waaye tamit bari na muusante wala muusantu maanaam nguur gi jàpp ne dafa war a ñëw ci këru diine yi ah, ñaan leen ay baat ñu wax seeni taalibe ñu voteel ko surtout régime yi fi jaar ak ñi leen jiite xaj na sëriñ yi tamit jàpp ne lëkkaloo ak nguur am na ay intérêt intérêt yu bari jaar ci ay tool ay suuf jaar ci ay passeport jaar ci leneen mu nekk diggante jàppal ma jàpp jàppal ma jàpp boo xamee ni xaj na jeexi jeexitalam ci réew mi euh, ci lu jëm ci lu baax mënoon na fee weesu nii bu fekkoon jàppalante bi njariñu réew mi boo ko taxoon a jóg may wax ne xaj na lëkkaloo bi ñu lëkkaloo jurul jurul réellement développement jurul réellement développement donc kon am na lu ñu ci war a jubbanti wala boog lu ñu ci war a sax tëggaat mu doon diggante bu bees boo xamee ni ginnaaw bu ñu ci waxtaanee day doon loo xamee nii day jur njariñ ngir réew mi Euh. mais suñu suñu seetloo dellu si tuuti ci baatu layisité mën nañu wax ne bu fekkee ci France lañ ko euh, copier bari na tey jii nii ci réew mi ay kuréel ak ay personnalité euh, ak ay catégorie yoo xamee ni jàpp nañ ne mënul ñàkk ci réew mi maanaam doon nañ ñoo xamee ni euh, daanaka sax am na ci ay integris ñoo xamee ni dañoo jàpp ne euh, ñoom ay intégristes wu laïcité lañ mun naa cee jàpp euh, yenn organisation droit de l'homme yi yenn fonctionnaires yi yenn universitaires yi yenn hommes politiques yi de notre Euh, am na ci ay kuréelu diine yoo xamee ni dañoo jàpp ne euh, ñoom euh, ñàkk ñàkk laïcité ci réew mi ñoom intégriste lañ ci maanaam laïcité dañ ko war a dindi ci réew mi sànni ko ba nekk ci ñoom it ay intégriste ñu jàpp ne baat yi nga xamee ni ñii ñi ngi koy sànni ñee ñii ji ko sànni ñee xaj na mën na am mu jur loo xame ni du njariñu réew mi euh, kon loolu bokk na ci li war a tax ñu toog comme toogaay bu mel nii wecc ci xalaat euh, toogaay yu mel nii nag mu ngi commencé di bari man ci gëstu bi ma ci def fan yi gis naa ne li ñuy wax assise nationale euh, def na ci jéego yu mag

d'ailleurs attiré l'attention hein, des assisards euh, que le projet de refondation de la nation sénégalaise que nous voulons proposer à notre peuple sera mal parti si nous adoptons la laïcité comme disposition intangible de la Constitution. Je les cite. Hein. Ils disent qu'ils sont préoccupés, autant ou même plus que les rédacteurs du rapport, par la possible rupture de l'équilibre des relations entre les confessions et confréries religieuses, entre l'État et les confessions religieuses. Il semble que la nécessité de proclamer une république laïque au Sénégal n'a été nullement exprimée par les populations. Pourquoi donc, à l'arrivée, la laïcité s'impose par la volonté d'on sait qui comme une disposition intangible et prend ainsi une place d'honneur dans un rapport censé être le recueil des, consensus de notre nation. Au contraire, c'est un renforcement raisonné des institutions religieuses dont le Sénégal a besoin pour promouvoir l'éthique et la responsabilité au niveau de ses citoyens croyants afin d'assainir à l'avenir les relations entre les pouvoirs politiques et religieux.

ñu demee wax donc Assise nationale ñoy wax la laïcité de l'État au Sénégal signifie au plan constitutionnel que le pouvoir temporel doit s'abstenir d'intervenir dans le fonctionnement des institutions à vocation spirituelle qui à leur tour ne doivent pas exercer leur emprise sur les pouvoirs politiques, civils et administratifs. Les institutions de la République ne peuvent être caractérisés dans leur expression par une religion, une secte ou une confrérie. Les représentants des institutions sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, de s'abstenir de marquer leur préférence ou le rejet d'une religion, d'une secte ou d'une confrérie. La laïcité implique, nous donne le devoir de garantir la liberté de conscience et le droit d'exprimer ses convictions il ne doit y avoir ni privilège ni discrimination découlant d'une appartenance ou d'une non-appartenance à une confrérie ou confession. Nous avons Nous principe de neutralité qui signifie qu'il n'y a pas de hiérarchie de traitement entre les croyances ou entre croyances et non-croyances. L'État n'est pas indifférent envers les communautés religieuses ou non-croyantes et est tenu d'observer un traitement équitable à leur égard. Toujours assise Les actions de l'État doivent se faire au profit de toutes les communautés religieuses. Donc au moins ici fini gis nañ ne euh, fu euh, France nga carrément établis, euh, état au profit des communautés religieuses donc c'est écrit ba pare ñu ci la solidarité à travers le devoir de l'État d'assister toutes les institutions religieuses de manière transparente. Donc, assister toutes les institutions religieuses de manière transparente dans leur entreprise de socialisation et d'éducation, sans discrimination aucune, dans des conditions à déterminer par la loi. Donc, non non, lañ ko proposé maanaam fésal nañ ne ci suñu laïcité fii Sénégal nguur gi war na mën a jàppale ay këru diine ci seen ci éducation ci socialisation jàppale leen mais jàppale bu leer nañ boo xamee ne du am du am làq-làqal du am nëpp ba ñu définiree li nga xamee ñoom moom la ñu jàpp moom lay mooy mooy laïcité ci lañ a position bi ah, laïcité dañ ko euh, continuer constitution donc moom la reprendre ci réforme constitutionnelle bi nga xamee ni Je la def ci ñu ñu taxaw ci ñu gis ne xaj li nga xamee ni moo posé problème mais contenu euh, ñu ci bari ànd nañ fii ci Sénégal ci contenu bi nga xam ne ni moom lañ jox laïcité maanaam muy tëddee njaaxaanaay wala ndey ji seex nga xam ne ni foo ko tudd ci réew mi bu ñu déggee wolof kenn du ko jàppe lu ñaaw mais nguur dafa war a tëddee njaaxaanaay par rapport ak këru diine yi nga xam ne ni ñoo fi nekk kon euh, ci loolu xam naa ni temps bi bariwul euh,

di fay ñi leen jangal ak euh, tank bi nga xamé ni système d'éducation la bo xamé ni lu ñor ñi ëpp ci Sénégal lay wax te nguur gi du leen jappalé nguur gi du leen du du intervenir ci seen ay contenu ba jamono yi xaj ci la ay quelques évolutions commencé am ci côté boobu loolu bokku na ci li ko indi euh, mais Euh, euh, mbirum mbirum mbirum layisité jur na aussi loolu ndax bu xaj na bu fekkee bu fekkoon tey jii nii suñu laïcité ñi nga xame ni noonu la war a tëddee tëddee na ni euh, ni nga xam ni noonu la nguur gi tëggee système d'éducation bi dana wuute ak ni nga xame ni noonu la taxawee mu bari nag ay kuréel tey jii nii yoo xamee ni dañoo jóg. muy arabisant yi nga xamee ni fi mu nekk nii Sénégal ci wàññi ñu bari jàpp nañ ne weesu nañ cinq cent mille seeni activité bari na jëm ci économie seeni activité bari na jëm ci politique seeni activité bari na ci jëm ci communication ñu jàpp nañ ñoom bokk nañ ci ñiy continuer di pousse ngir nguur gi nangu tëral laïcité sénégalaise réellement boo xamee ni day lëkk day day dëppoo ak suñu cosaan cosaanu réew mi dëkkoo dëppoo ak li nga xamee ni moom mooy taarixu réew mi ak réalité réew mi euh, ñi nga xamee ni ñooy ñooy puus jëm ci loolu tamit bokk na ci intellectuel yu yu confrères yi këru diine yi nga xamee ni at yi ñu weesu seen doole yokk na seen taxawaay yokk na ñu ci bari léegi

Euh, kon képp ku bëgg a ñaari camp yooyu division bi nga xamee ni moo am seen diggante ni nga koy corriger ci éducation ngay jaar te waxtaan yi fi mujj damay wax sax depuis fanweeri at soo ko seetloo euh, assises nationale yi nga xamee ni moo fi amoon temps Abdou Diouf ak assises nationales yi nga xamee ni ñoo fi am tey ba daaw benn kàddu bi ñu wax mooy nañu dugal njàngaleem diine ci école yi nañu dugal njàngaleem diine ci école yi mu nekk ñoom ñaar ñëpp seen principale conclusion ñu gis ne ci loolu nguur gi xaj na mi ngi ciy def ay jéego waaye personnellement li ma jàpp mooy jéego yi jéego tactique la maanaam jéego pour fekk fexe ñenn ñi noppi maanaam revendication yi wàññeeku waaye du jé du djégo yo xamné ci stratégie réellement le tëdd ba taxna suñu tëralee xatna yenn say yenn djégo euh ñi nga xamee ni ñoo ko recevoir djégo yo jàppee ko lu baax dañ koy jappé tactique gu nguur gi ay naxaate mu doon lo xamee ni dañ ci wara a dellu si ci une démarche plutôt stratégique wolé carrément assumer carrément que ni réew mi dafa war a doxe ñaari tànk warul doxe xalaatu xaj na waa Ndakaaru wala xalaat yi ñu jàng école tubaab dafa war a doxe ay tànk yoo xamee ni dina lëkkale dina boole dina fexe réew mi ànd juboo at yi nga xamee ni moom lañu jëm euh, fi fi mu toll nii nekk nañ ci jamono joo xamee ni euh, euh, jamono ju ànd ak

kon war lañu mën a tey tëggaat aussi éducation bu bees boo xamee ni day nekk lu ñuy refonder ndax ñi nga xam ne ñooy jàngat mbiru éducation bi yëpp gis nañ ne éducation bi li ko dal mooy cancer te ku nekk xam na fa cancer jëm kon doonul loo xamee ni dañ ko war faj faju taf fii ci ab góom wala faj-fajal

place bi nga xamee ni moom la am ci dundu nit ñi ñuy def classement wu réew yi Sénégal mooy nekk premier ñu jàpp ne mu doon institution bu sérieuse bu ko basé ci ab méthodologie bu leer kon loolu bu caaxaan ñu jàpp tamit ne Sénégal bokk na ci réew yu gën a tolérant ci àdduna bi tolérance boobu moo tax ku mel ni Léopold Sédar Senghor nekk pendant vingt cinq ans comme ni ko ñëpp xamee président moom ñu te nguuram départ fii euh, kon war nañoo gën a dëggal model boobu maanaam assumer ko wane ni lii mooy li nga xamee ni mooy modèle u Sénégal ñu bañ koo boole ak toppandoo benn dëkk surtout nag dëkk yoo xamee ni non seulement dañ ñoo sori ci cosaan sooy ñu ci géographie ba pare dañ ñoo nootul moo tax lii nga xam ni moom la ñuy dundee tey ñu koy dundee. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.